du 5 décembre au 5 janvier ay promotion yu amul fenn waaw waaw moins pour cent ba moins 70 pour cent waa li neexul ay dàll équipement sportif Lacoste xoolal ma costume yu yàññ yi montre de classe maillot équipe boo bëgg lunette pull chemise cravate ba ci sax dàll loolu yëpp nag fenn rek nga ko mën a amee cawelma ñoo ngi Sacré que 3 entre la boulangerie jaune et Auchan première rue à gauche route goudronnée koñu Mbaye Faye Wellma c'est l'habilleur des VIP le prix s'oublie la qualité reste ak foo mënti commandé ci àdduna dinañ la ko livrer mën nga ñu jot ci 77 555 21 67 wala ci 77 370 43 43 Wellma daal amuñu moroom mbokku internet yi nuyooti nañ leen ziarati leen ñaanalati leen jàmm saakoo ko sàkkooti ko ci yéen Equivox la du mën a ñàkk ak kan Lutte TV léppi làmb 100 pour cent làmb Mouhamadou lamin mi ngeen xam ak Ababacar den ak kan tey Omar Lamine defe naa loolu war na mën a yomb de ah. maa ngi jéglu de sama téléphone ba moom du toog benn place Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow macha allah Babacar maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga xamante ne ñooy jàkkaarloo ak ñun rek comme niñ koy faral di amee ci luttetv.com ak Equivox TV wala Vox Arena. bu ñëpp baax. Vox Arena mooy tëgg làmb yi mooy tëgg làmb ji. Equivox mooy tele bi. sotti ci ak def ki la. voilà ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare.

Babacar dañ koy nuyu ko de waaye ko nuyu mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom. aji Seydina dalal ko bisimilah ah man maa ngay juum ko fi yi <laughs> maa ngi jéglu de Seydina Omar ñu ngi lay nuyu nuyool. ma ma maa ngi nuyu Babacar. di nuyu di nuyu di nuyu Lamine. di yëpp. di nuyu suma mag Lirou Diane. di sant yàlla baax di julli Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sumay ñaar waajur di sant suma sëriñ sëriñ Bassirou Bara di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokki leeram te taf ñu ci barkeem ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu njabootu Cheikh na Cheikh Sadou bu ñu yàgg fi loolu te wér man li ñëpp rawatina waa Cheikh uh, Ahmad Tidiane Sy rawatina aussi tamit waa kër sëñ jox seen wàccuwaay sëñ mu yàgg fi loolu te bépp kilifa diine rek yàgg fi lool lool te wér. rawatina nag waa Casamance sumay supporters yi fi ñu nekk sumay cosaanu maam waa Malfara di jaale waat euh, Sénégalais yëpp euh, man damaa juum nag boobu ngeen ko dagg <laughs> donc di di di béggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu suma frère Sakes di nuyu si tamit Badara di nuyu suma patron Aziz Alioune Ndiaye suma papa Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Fall Simon ak Omar. maa ngi leen di bëggee bu baax a baax ak Thierno Gueye mi nga xamante ne suma lépp la maa ngi koy bëggee di nuyu waa golf rawatina waa Guédiawaye. am na solo Lamine nuyoo baa ngi noonu waaye ñun tamit ginnaaw bu ngeen nuyooyee dañ lay jaale rek sa turandoo di Père Balla Gaye Ndour ku ne xam na ne moo la formé ci làmb jóge fi bu yàggul ak beneen sportif boo xam ne maanaam reconnu par le monde muy Pape Bouba Diop la ko waral mooy bitu senegal France ba defe naa foofu tamit am na loo fi war a wax. dëgg la waa di ko jaale di ko jaalaat euh, àdduna yëpp kon ni ma koy jaale suma turandoo noonu laa koy jaale aussi tamit euh, Pape bu Diop parce que sotti sec def si la rek ñun ñëpp ay sénégalais lañu rawatina aussi tamit ñu présenté wu Sénégal fu nekk suma Pape suma turandoo champion d'Afrique la woon parce que boxe la woon def Espagne euh, ba yàlla dogal li mu dogal euh, ba mu ubbi école de lutte Pape aussi tamit international Sénégal France loolu kenn du ko fàtte xale yu ndaw yi sax xam nañ ko donc mu defal ñu jàlloore bu nekk nag yàlla dogal mu génn àdduna ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana mook ak ñu fa fekk ak suma turandoog ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Mamadou mm-hmm. am na solo Babacar yaa ko wax sànq. xaar bokkul woon ci li ma ma doon xaar sax pour ñu waxtaan ci mais lu am am la muy digganteem ak turandoom. xamante bi laa bëgg xam. parce laaj nañ ko moom a formé moom ci moom laa nekk ba dégg daale mais xamante bi fan la jógee. écrit waalo xamante wala da ngeen doon dox ci géej waaye rek mu xam ne Double Less moo la jur mu teg ci yow loxo. ma formé xamante bi nag aussi bon man dama doon liggéey mécanicien mais lees numéro deux sama turandoo papa la sama papa lañ ko tuddee yàlla doon mu gis may comme doon liggéey car rapide nekk apprenti léeg-léeg mu gis ma ma am gabar yi. wala bu may dox yenn yi. mu ne ma yee eh, dama nga ñëw bëri ma ne ko man bëriwuma affaire yooyu di ko tooñ noonu. lees de waaw lees may romb mooy sànni ay cent franc ay. deux cent frais ma koy for ma koy may ba yàlla dogal nag après mu gis ma benn na mën na dem école ba ci nii après mu présenté am Baye Balla yàlla dogal mu ubbiwoon école aussi tamit ma dem ci école bi les daal moo tax ma xam ko. moo tax nga xam les deux moo tax nga découvrir Père Balla Gaye Ndour. waaw moo tax ma xam ko. léegi les deux lan mu la doon gis rek naan la demal nga nga bëri Ah, jëm la doon gis wala da ngeen doon tase ci ay mbapat. non non non boobu man bëriwuma boobu bëriwuma laa doon liggéey moo may romb xam naa mu gis aussi tamit suma gabari en même temps dafa doon toog <laughs> ma doomi mbër da dem bëri ci affaire yi loolu la demee nag après mu jël ma yóbbu ma foofu moo tax. durant li liñ nekk yëpp Babacar durant bi nga nekk ak Baye Balla yëpp lan moo la gën a ci moom. Baye ko fàtte. Baye Balla bu bi ñu nekk yëpp mënu ma ko fàtte parce que te duma ci fàtte benn instant boo xamante ne ci lu ma defar lu baax parce que lépp lu yaakaar naa muy dund rek muy dund man lépp la ma mooy maanaam ci entraînement di conseil di ma ñaax ma doon jàng métier mu bàyyi métier bi yow mun nga dimbali parce que làmb mun nga ci dimbali sa bopp dimbali say waajur dimbali say mbokk xam nga loolu rek déjà la boo xamante ne ku yàlla may la moom vision ba di la ko wax après nag ci laa bàyyi métier ma ngi liggéey naa di lay tubaab joor après nag ci laa bàyyi ñëw mm-hmm. nekk nii ak moom nekk ak moom ci mbapat yi nekk ak moom ci ci entraînement yi nekk ak moom fépp waaw extérieur rek lañu ñu àndul ci dem entraînement mais ànd nañ extérieur dem voyage ñëw mm-hmm. mais lépp daal mooy loolu mm-hmm. am na solo loolu lépp defe naa am na te defe naa mën nañ ko résumer ndax ku ne xam na ne dégg nañ que ni daan yóbbu ci ay mbapat ngay bëri ji wax nga ko indi la arène ba nga nekk roi des arènes ba sa dernier combat moo la indi mais yàlla dogal feebar am ci diggante bi mm-hmm. yaa ngi dégg bi feebar amee bi mu dégg nañu ay wax defe naa wax nga ko mm-hmm. ci ne Balla Gaye 2 est-ce que ni mu waroon taxawu turandoom ak yooyu loolu loo ci mën a leeral Sénégalais yi sa digganteeg sa turandoo rawatina bi yàlla defee mu tëdd feebar parce que wax ji xaw na bëri lool Lamine mm-hmm. te des fois nag wala fa ko wax leeral ay wax wedd du ragal mais dindi tuuma la quoi xaw loo ci mën a wax loolu. waaw loolu am ku ma ciy leeral xam nga àdduna moom. ginnaaw kuy def ci àll bi. wax la nag parce que leeral bi ma ciy leeral sax parce que ni nga naa wax de amul leeral. mais dinaa jox tuuti rek. sama digganteeg euh, Baye Balla. da ngay dem laajte ko ñi nga xamante ne ñoom laa nekkal ci paax ba. wala ay njabootam. wala ay doomam wala ay soxnaam. ci sama diggante ak man nu mu mel may bal ma waroon fekk sa ci hôpital euh, ci paax bu toog mën na ko jugoon jëm hôpital bolo ko ay médecin yàgg ko siifar ba yàlla lu muy dogal lu muy dogal bay bal la sama papa la ba nga xamante ne li ma koy gis sax mu ëpp li gis man sama papa kon munul am métit wala am lu ko daal ma koy seetaan munul nekk c'est impossible ginnaaw damay def ci àll bi asuma ak moom loolu rek laa am lu ma ci wax waaye di ko ñaan yàlla yàlla yërëm ko te xaaru ko àjjana. amiin kere bi ñu la wooyee nela yàlla jël na ko fu mu la fekk ak nu dund circonstance bu métti boobu bi nga jékkee jékki rek ñu ne la Omar kat sa turandoo wala daan tàggat formé la yàlla jël na ba kanam loo yëg ba réaction nga def. waaw boobu nag toog naa lu yàgg en fait toog naa wax nañ ma ko mais toog naa mënumaa génn sama kër <laughs> ma toog affaire yi dikkee ma kaw boo xamante ne sama tànk dafa nagam si saa ma bëgg jug mënu ma jug toog naa lu yàgg doog dem waaw parce que nekk na ma lu ma bett waaye aussi tamit bon kon yàlla dogal na man xam naa feebar bi mais aussi tamit euh, dañ koy sant yàlla rek lu bëri da xam munuñu ko wax dañ koy sant yàlla te xam ne yàlla moo ko tuddee noonu mais jour boobu moom wax dëgg yàlla toog naa lu yàgg mënu ma def dara. lu mu la mujj wax. ay bala mu mujj wax mooy <laughs> dañuy waxtaan léeg-léeg daf may woo dama yaa foo nekk ma ne ko maa ngi fi mu ne ah, ñëw ma ne ko ah maa ngi ñëw non non mais ba muy mujjee këram di ko gis maa ngi koy fekk mu tëdd feebar ay doom ñëpp toog moom mu dugg jour boobu waxut kenn après nag ci laa dem ñëw këram di ko seet ñu ne ma mu jóg ma ñëw mu ne ko abal la moo dal mu ne ma dara dalu ma tellement que te jour boobu yëpp dafa feebaroon doomi di ko mbar ne ko yow paa yaa ngi toog fii suba léegi nga ne da feebar nga ne daal daal la Balla Gaye moo tax nga wax loolu mu ngi leen dara dal ma dara dalu ma parce que boobu laa mujjee gisee ak moom après ma yàlla lu muy dogal bàyyi na fi njaboot yàlla na njaboot ki barkeel barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam Balla ban taxawaay la war a am vers njabootu Baye boobu nga xam ne ñoo fi des rawatina doom bi nga xam ne mu ngi ci làmb ji di bëri mu Youssou Ndour. waaw Youssou Ndour moom sama doom ndax moom ba muy nekk xale sax la ma ko yaayam dénkoon ak papaam loolu yàgg na du tey ndax boobu man bàyyi baal li ma la daaw ma tàgg moom këram laa nekk lu bëri bëri bëri ngir encadré ba nga xamante ne waroon na ma ko encadré yàlla dogal li muy dogal kon li ci am solo mooy njaboot gi yàlla ci yàlla teg loxo te ñun lépp lu ñu war la li nga xamante ne rek war nañu lañ koy def mais Youssou aussi tamit lépp lu ñu war ci moom ci côté sport moo xam mu munti doon jàppale ko ba li papam bëggoon ci moom mu àggali ko ak jàmm. Hmm. loolu am na solo fi may jeexale rek ci Baye Balla école hmm. école de lutte bi. Hmm. moom moo ko créé yow nga dugg ci làmb 2005 2012 nga dégg daal di nekk roi des arènes. yaakaar naa loolu am na rôle boo xamante ne joué na ko ci. ba yàlla yombal loolu. léegi génn na àdduna yéen yéen a fi nekk ak coach yi nga xamante ne bàyyi na leen fi ban taxawaay nga nar am ci écurie bi. ak sa rakk yi nga xamante ne ñoo ngi bokkal écurie bi parce que gis nañ écurie yu bari yoo xamante tey tête de file bi bu ñu demee ba bàyyi bi écurie bi écurie yooyu maanaam dañuy toog sax am combat. gis nañ ko ci Ndakaaru ko ci Boul Falé est ce que mën nañoo xaar Balla Gaye relevé défi maanaam li fi per Balla bàyyi mu fexe ba loolu du naax saay. waaw loolu moom ñaanuñu yàlla mu naax saay mais si tamit c'est pas la même chose parce que xam nga ñu ngi fi tudd yëpp écurie yooyu ñun presque ñu fekkoon ñu jeexal. donc kon ñun tamit ay jeunes lañu ay même génération lañu aussi Baye Balla école bi école de lutte la la yor mu formé ko ci ay sart yu leer am këyitam am lépp li nga xamante ne rek école war na ko moom ko ñun nag moom moo ñu encadré uuf ñu ba ñu mel ni ñu am tey bu yàlla dogalee aussi tamit mu génn àdduna avant moo génn àdduna yëkkati këyit école bi jox ma ko mënuma aussi tamit toppaat ci liggéey bi. ba yàlla dogal lépp li nga xamante ne rek de manqué woon na ko mu gën koo am lépp lu mu manqué woon si tamit ñu wuti ko ba yàlla dogal li mu dogal waaye école bi daal li ma la mën a xamal maa ngi ci waxtaan ak sumay mbokk maa ngi ciy waxtaan ak sumay am di jàmm yi maa ngi ci waxtaan ak waa géejawaay maa ngi ciy waxtaan ak aussi tamit kilifa géejawaay mm-hmm. parce que école bi mënul nax saay parce que école de lutte bu njëkk a créé école de ci Sénégal moo fi njëkk am waa des arènes kon donc école bi nekkul luy nax saay parce que am nay kilifa maa ci waxtaan ak Aziz maa ci waxtaan ak Baye. Hmm. maa ci waxtaan ay Masata. maa ci waxtaan ay Baara ay kilifa yi nga xamante ne wax dëgg yàlla. dañ hmm. ci xar ah, dama ci xar sama tànk hmm. tamit du nangu poussé yi ci man. lépp li nga xamante ne war na rek ñu war waxtaan ci école bi suqali ko ak les numéro 2. dañ ci ànd liggéey ci. ba école bi ma am benn melukaay boo xamante ne nit ñi yaakaar bi est-ce ah. ah, man maa ngi ci terrain bi ndax euh, maa ngi ci terrain bi fii ngeen ma fekk maa ngi ci liggéey bi. mais aussi incha allah war nañoo am ndaje yu bëri yi nga xamante ne war nañ ko am. Hmm. buñ ko amee ba pare dinañu ñu réunion waxtaan former école former sofla former bureau bi. Mhm. former lépp lu ñu war a former. bu ko defee nag incha allahu. Mhm. Euh, ñu jël xale yi jox leen ay programme jox leen heure bi ñu war a entraîner lii la ñuy def lee la ñuy def lee la ñuy def. Mhm. mais ci pour le moment dañuy nekk di waxtaan pour xool bés bi nga xamante ne rafet na ñu woo magu géej waaye kilifa yooyu ñu waxtaanee ko. boo ko defee nag école bi mën a tegu si sart yi nga xamante ne sart yu normal la. Mm-hmm. parce que Lamine foofu bu la neex sax mën nañ koo tëj mais li ma fi ma ci mujje man mooy eh, bi mbir mi amee yàlla dogal dogal bi ñëw dañu gis monde làmb yëpp fan yooyu maanaam ñëw kenn desul du promoteur du mbër du ñëpp say adversaire ni nga gën a wujjalteen ci maanaam ñëpp sol seen di dal ñëw loolu monde làmb boobu tey ban message la leen Balla di yónnee ginnaaw bi mbir moomu amee. waaw parce que àdduna àdduna moom kaa ma la nit ñëpp ñoo bokk ndey ñoo ah door ko li nga xamante ne mooy suñu métier la dañ ci war a nekk mais lépp luñ ci war a nekk rek dañ koy def ci fulla ci jom ak ci ngor mm-hmm. ku yàlla jox ndam nga xam ne noonu la parce que loolu la loolu mooy Sénégal mm-hmm. mais bu jeexee aussi tamit ah war nañ sekk jàmm war ñu nañ demalante war nañ tuddante ay doom parce que loolu suñu borom moo ko bëgg mm-hmm. parce que métier rek la ah. métier moom mënut a weesu lu te vraiment ma leen di sant bu baax di leen gërëm parce que gis naa keroog wax dëgg yàlla ñëpp bàyyi seen yitte ñëw ci ci ci mbir mi ci dëj bi Baye Balla bi. parce que vraiment monde làmb ñëpp bàyyiwuñu kenn journaliste yi managers yi promoteurs yi CNG ñëpp ñëw nañ vraiment donc ñu ngi leen di sant baax ci di leen gërëm ci côté boobu waaw. am na solo Lamine fooy duggaat. foofu foofu mën nañ ko tey. waaw dañ ko ñaanalaat rek yàlla. yàlla na ko yàlla yërëm amiin xaaral ko mu mboolem yaa tudd de la lutte. monde de la lutte de mars ba léegi mhm. ñu tëj làmb ji. maanaam ñoom li leen doon fay. instant bi maanaam fay fayee kootuñu. waaw monde de la lutte surtout lutteurs yi. 14 mars 2020 bi ci lañ arrêté woon yaakaar naa léegi mu def un an. presque. ñu ne corona bi moo taxoon ñu tëj ko. Mhm. corona bi dem nañ bay am 8 cas wala 5 cas. moo ñu dese woon. Mhm. ñun instant bi song nañ deuxième vague bi. loolu la ñu wax. naka lañ mën a organiser woo ba reprendre li nga xamante ne moom mooy combat parce que activité yu bari instant bi commencé waat nañ ba football bi le janvier nee leen dem dem leen ngeen doxal. waaw kon ni nga ko waxee rek ni nga koy ñaxtoo noonu la ko Sénégalais yëpp di ñaxtoo parce que aussi tamit ñu dañoo nekk ay ndaw nekk ay xale ñu bëri topp suñu ginnaaw kon donc man li may muy wax di ko lancer. appel monsieur le président de la république di Macky Sall euh, ñun làmb la am mooy suñ cosaan képp ku mës a ci réew mi rek ñu koo fonkale. Mm-hmm. nga la nga fonk nga ñu aussi tamit suñu làmb. Mm-hmm. suñu espoir bi nga moom lañu am. Mm-hmm. moom la sénégalais yi di dindee seen stress. moom la sénégalais yi di seetaan seen xol di neex. moom la sénégalais yi di ko dund ñu koy yëg. la problème yu bëri ñu koy fàtte. kon monsieur le président na fexe. gën a fonkaat làmb ji te teyaat làmb ji. parce que aussi tamit il est temps aussi nga jàppale làmb. soutenir làmb. mooy sa njëriñ mooy njëriñu Sénégal. dëgg la. làmb ji bu ñu ko tëjee ba léegi yàgg na. gisoo benn mbër bi kaas. naan leen nii naa nangam nangam mbëri sonn la ñu kenn. parce que dañoo am ngor am fulla am jom am personnalité. parce que wéet gore wéetalu gore. ñun moom la dundee. am yàlla la ñàkk yàlla la. Mhm. yàlla mooy joxe mooy xeñe. Mhm. mais aussi tamit yàgg na. Mhm. na bàyyi xel bu baax ne yàgg na mos ñoo mbëri mos ñoo kaas kon gars yi pourtant ñëpp jot nañ seen xaalis. gis nañ waaw gis nga. fii ñëpp jot nañ seen xaalis. mais gisoo benn mbëri ñu ne nangam sangam wala Demba ak Samba Paate kon loolu nag ñun bu ñu amee ngoru noppi dañu am ngor aussi tamit ibbil ñu suñu làmb. ñu fas yéene ah daan suñu doole ci li nga xamante moom lañ am ci Sénégal. waaw muy suñu cosaan. Babacar comme ni mu koy waxee rek. du ma mm-hmm. koy dugal ci ko courant bi la ñuy comme ni ma mm-hmm. koy waxee. Mm-hmm. arène nationale gis nga ni mu seere Iba Mar cent mille francs handball stade handball la. handball moom kenn yaakaar naa du ko du ko du ko du dem ndax stade boobu noonu. Ah, kon làmb am na lu muy dugal ci réew mi. Mhm. sérigraphie da ci gis gis. boppam mhm. tey da nga ciy gis sa bopp bëreewu footballoo. Mhm. man dama ciy gis sama bopp ñeneen ak ñeneen kon làmb amul ku mën a taxaw tey ni facteur de développement kon état bi yaakaar naa ne ni mu war a épauler làmb pour man des na. comme ni ma ko waxoon keroog ministre bi dañ ko woteel budget 32 milliards. budget 32 milliards lañ ko lañ ko voteel 32 milliards yooyu noonu na ci gestu làmbu li ci làmbu am nañ ko nañ ko jox waa làmbu nekkul ni tey mbër bi day am combat rek tey dem seeti ministre bi mu defal ko ay t dagal ko bii avion. may ko un million may ko un million mu ñëw sant loolu kese maanaam doyul. loolu tamit dañ ci wax mbëri ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax loolu doyul maanaam bu ñu topp topp seen intérêt bopp ñoom kese. am na solo. voilà li nga wax noonu parce que loolu mooy lan. mën na am sax du question mais parenthèse la. non lu jar a la parce que tamit maanaam intérêt général. Mm. dafa ëpp doole intérêt personnel mm. Lamine. Mm. te li nga wax noonu c'est pour tout parce que mbër tey xam nga tey Balla nañ ne wala Modou Lo wala Gris Bordeaux wala Tapha Tine ñooñu. maanaam ñu nga au sommet allah maanaam ñoom amatul luñ leen di laaj. Mm-hmm. te tey defe naa làmb teral na leen. Mm-hmm. mais daf ci am ñoo xam ne ñu ngi jóg nekk ay xale war a doon dara ëllëg bëgg a yegg fi Balla Gaye yegg comme ni nga ko ko laajalee école ba mu ne am na ay xale yu fa ne. Hmm. kon defe naa intérêt ko doxalee moo yëpp solo Lamine. kon état nag na ci dugal loxoom. ministre bi ba mu ñu dalalee moo wax nga dégg mu ne làmb la bëgg. waaw moo ko wax dëgg ku nar a yàq làmb. moom mu jàmmaarloo ak yow. mu jàmmaarloo waaw ak ak ak ak Macky par respect. président Macky Sall waaw mun ne ko tijji leen ñi seen làmb ji parce que ñi ci des ñëpp libéré nañ leen ba mu des axlu làmb léegi nag ñoom ñoo gën a influence ci mbër yi ku mel ni moom ku mel ni Modou Lo ak Gris ñoom tamit dinañ soxla di ci yëg seen kàddu Modou moom interpellé naa ko ci suba mu ne woona Gris Bordeaux mhm. man ne ko ma woote xaw ma da a war a génn wax parce que nag il est temps ngeen génn wax Balla boobu ba tey kenn déggu leen yéen a ngi toog calme est-ce que du ngeen wax wax jotul est-ce que xam nga wax jot na maanaam wax danga koy wax fi nga xamante ne dafa jot nga wax ko mooy lu ñu toog di ko xaar esport euh, moom la ñu am man Sénégal rek laa mës a gis sport boo xamante ne dañ koy ñàkkal fayda fii ci Sénégal sport bu hmm. am na ñoo xam ne ci Sénégal rek du sport dañ naan la lamb du sport. non non euh, lan la. am na ñoo xamante ne loolu la ñuy wax. su suñu jàpp seen bopp tubaab yi ñuul. voilà non xam nga lamb du sport. loolu waxi da ko ko wax rek da ngaa wax lu la neex parce que tey bu du sport comme bul seetaan. waaw parce que bu du sport doo gis ku dagg biyam. Hmm. bu dee sport kon du ñu luwee stade promoteur yi day dagg licence. te loolu après fan la jëm. waaw ah, ci keesu état na ñu woon di yi tey exemple tey dañuy dagg licence. ah n'est-ce hmm, aussi dañuy dagg licence. Ah. donc loolu yëpp fan la jëm. mbëri dagg licence waaw mbëri dagg licence. Hmm, hmm. kon donc dafa am loo xamante ne ñun sénégalais il faut ñu xoolaat ko. suñu papa yi nga xam ne dañ fa def lu ne gàññ ana pas suñu papa Boy Bambara lu mu fi deful ci amul. daa bàyyi réewum dem pour défendre réewum. ana Double lees dafa bàyyi réew réewum dem défendre réew. Pape Diop Boston noonu. te pour pourtant état bi gëstuwu leen sax. lijjantiwu leen. te pourtant ñun dañoo xeexal seen dëkk. at bu ne dañ leen a war a woo takkal leen ay médailles. di leen delloo njukkal da nga gis sportif yi nga nekk da nga xam dañoo nekk Europe. fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna dañuy gis loo xamante dañ koy def ñu ñu reconnaissant ne kii vraiment def na fi lii. utal ko monument bu rafet. décorer ko ba àdduna bi xam ne lii kat ñoom ñoo ko def seen. kii nga xamante ne def na ko réew mi kontaan na ci moom. mais Sénégal amul loolu da ngay rente ba sonn jël sa budget bi nga am wala li nga moom di ko def mais après yow du ñëw sax lijjanti loolu ba da nga ba par sport laa ma nii ban sport Sénégal bu génn bitim réew bu weesul football bi ban moo fi dox. amul lamb moom championnat bu ñu dem gagné ko. te football fayaguñu. football fayaguñu moom du dox. lañ fay def ci ay milliards te fayaguñu. waaw te mu ngi te du dox te ay milliards lañ fay def. donc loolu sax mën nañ fa def milliards parce que dañuy génn defendre Sénégal. mais aussi tamit suñu papa yi nga xamante ne dañoo génn defendre xeex jël seen doole jël seen lépp def ko dañ leen delloo njukkal. te jox leen seen gëdd te xam ne dañoo bokk ci réew mi bokk nañ ci li nga xamante ne vraiment ci biir réew mi dañ fay def loo xamante ne kenn def ko nañ leen jox seen gëdd te gëstu leen te gëstu sport bi nga xamante ne bu doon moom ah dina doy waar damay dégg Matar ba dinaan euh, kon ñun waruñu wax ne xale yi bu ñu deful euh, sport wala bu deful làmb dem defi leneen dëgg la bu ñu deful leneen bu deful sport def leneen mais ngala yéen ñi nga xamante ne yéen dafa nekk di njiit <laughs> yéen a war a soutenir làmb <laughs> te làmb encadrer làmb xeex ngir làmb wax tamit aussi neex na mais jëf ko aussi tamit am na solo <laughs> waaw dajale ay nit am na solo mais aussi dajale dafay fekk aussi tamit yow la ñu bëgg la sport bi bëgg ci làmb nga def ko maa ngi koy nuyu à ñoo ko nag ah jot na nag làmb ji beeku nit ñi bëre dëkk bi am na mbër yoo xamante ne man waxuma sax pour sama bopp de mais suñu rax yi génération bu war a génn. am ñu leen yaakaar ñu bëri topp seen ginnaaw donc day métti si ñoom nañ leen jàppale foofu la ñuy waxee. waaw Lamine ba tey parce que loolu lépp sport la parce que sportif yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. moo xam volleyball bi handball bi basket bi am na koo xam ne yéen a dëkk fii Géejawaay ñu koy wax kenn dooy gis nañ fan yi presse bi génn ñuy wax sax ko ketal ci koo xam ne défendre na Sénégal. Mm. dawal ko defe naa génération ñoom Ami Mbacke Thiam la feebar ba ne ci ay jafe-jafe ay at ba am problème comme li nga wax léegi ci défendre sa réew après boo ci jógeetee am ay jafe-jafe kenn du la taxawu kenn dooy moomu Géejawaay gii la dëkk. bari na kon te ñooñu loolu état moo leen war a jël en charge parce que seen àdduna seen lépp dañoo bàyyi seen njaboot bàyyi seen famille dem xeexal Sénégal kon Sénégal aussi tamit amul lu li nga xamante ne bu la nit xeexalee bu ñëwee nga défendre ko ci lépp lu munti doon. bon ku ci gis sànq sa bopp bu fekkee wax ji da ko yaakaar ne wax ju naqari waxuñ ko wax ju naqari dañoo wax aussi tamit lu positif li nga xamante ne mooy yoon moom la nit war a doxalee parce que tey milliards yi ñu jàpp di denc amul benn njëriñ. waaw compte banque yi fees na te xaalis bi dañ koy dënk rek nañ ko génnee séddale ko ci askan bi. waaw man loolu laa am ma ci wax. xaalisu réew mi la laal nañ ko jox waa réew mi. Euh, Lamine Daman. xaalisu réew mi la nañ ko jox waa réew mi yaakaar naa ne moom message bi message bi jàll nañ ñu ngi koy xaar tamit ci yeneen mbër yëpp. comme ni ko ni ko ni ko Eumeu Sène waxee keroog. moom wax na ci tey ni ñu ngi xaar tey Modou Lo wax ci comme ni ma waxee ñoom ñoo gën a influent tey benn liiru jaan buy wax. gars yi ko war dégloo di nga ko dégloo ku mel ni Gris Bordeaux moom mi nga xamante ne mooy président des lutteurs en activité wala les lutteurs du Sénégal lañ wax léegi. waaw les en activité dafa naa moo leen jiite. loolu am ñuy compétir nag moom. na na génn wax ci waaye nag mbëri yu ndaw yi tamit bari na ñoo xamante ne instant maa ngi leen di dégg ñu naan Gris Bordeaux Gris léegi nag nañ bàyyi seen yitte dem adhéré ci kuréel bi ndax yaakaar naa ne état moom. xam nga la bàyyi xel mbooloo kese la bàyyi xel. lu mbooloo mu ànd kese lañ bàyyi xel nañu ànd ñoom ñëpp bokk benn groupe ñoom ñëpp adhéré. ku ci nekk am carte yaakaar naa loolu am parce que Gris de jël naa ko démb mu wax ci. Hmm. parce que moom jàpp na ne sax ñii ñoo defut li leen war. Hmm. ca magam la ko njëkkee ma leen jiiteeg ñoom ñii ñëpp parce que nee ñoom. Hmm. ñooy suñu mag ñoom ñoo war a kii nag ku ni dégg na li mu wax leer na nañ kon defe naa daal fi mu nekk nii li ci des mooy hmm. état bi comme ni ñu waxee rek ñun ñoo leen dénk nit ki nag bu la dénkee lam la dénk defe naa solo mooy nga di ko gestu di ko jàppale pour réew mi mën a dox parce que daanu dajul suuf waaye nga jéem nag hmm. loolu defe naa Lamine yàqul dara hmm. léegi fooy duggaat dugal fa la neex dugg fu ñu neex balla kon fi waaw fi ñu neex de bu fenn lay doon defe naa kera dem nañu mbuur am na sax ku ñuy tooñ non balaa foofu wala mbuur bi daa gaaw balaa foofu anniversaire bi waaw waaw man am combat di def anniversaire ñëpp ñëw. ak làmb ak làmb maanaam ni mu ndax dafa am lu ci changé mbër bu daan am combat du nangu ku dugg këram bala ngay am combat. ubbil boppam ubbi buntu këram. ubbi ay buntam ni day day feete anniversaire am. lu ci maanaam lu doy waar. waaw bi ci des man dama ko ci tànn rek benn affaire la bu jaaxal ñu bari laaj nañ ma ko lu tax anniversaire bi ñu taamu ci lu weex. Hmm. am na ñu xaw ma yow. ay sekere xëy na ah waaw xëy na Omar anniversaire bi da nga ko def ubbi kër am na sa ko doon xaaju ne ku dëkkul géejawaay doo dugg ci kër gi ba nan faa andi sax ab xeex. Ah. waaw xam nga kooku moom itam kenn xamuti mbiram daal. benn paa benn paa waaw. anniversaire. waa di nuyuwaale sama papa Khadim Ndiaye. doomu ndey Lirou Dia. gis naa artu bi keroog nu mu def vraiment ak mbëri yu a ñëwoon ñëpp ay lees Abdou Diouf ay hmm, ton asafurlaa kii Pape Mama Fall ñun ñëpp. Lamine Golo ñun ñëpp ñëwoon nañ fa. Mhm. Maguette Seck Maguette Seck gis nga ak Lirou Diane ñu bëri ñëw na ko mu limee naa jiw waaw ah, boo gisee blanc bi xam nga blanc moom lan lay signifier la paix jàmm rek la loolu kese lay signifier moom la ñuy doxalee parce que bis boobu bisu jàmm la anniversaire nag féetee ga dara bis bi nga judd moo ñëwaat rek ñu ko ko féetewaat loolu kese la. dañ dañ doon gis mbër su amee combat. signé na combat rek am na ñoo xamante ne même bu ñu signé wul combat sax kenn du leen jege. nga signé combat war a jël revanche wala ñaari revanche comme ni nga ko waxee. Mhm. nga ubbi say porte maanaam xooloo kuy dugg ak kuy génn. non loolu loolu. adversaire lan moo changé ci Balla. non sans Balla dara changé wu ci moom. parce que ñu ngi nii dèjà ba combat bi ba léegi waxuñu la waxu date te pourtant saa su ne ngi xëy di entraînement suba ngoon ku dégg bëccëg. Hmm. mais nag kon anniversaire la dama ko war a def ak sumay mbokk ak su may am di jàmm loolu kese la mais du dara. waaw. xalaatoo ku ñëw anniversaire bu mel noonu nga ubbi sa kër ñu miine la fa wala yu mel noonu xalaatoo ko. miine yooyu moom yooyu deuxième la. Hmm. yooyu deuxième la. nga koo gëm. la. ay miine mooy la. Ah, ma ko gën a xam ndax yaay bëri. man xamuma miine de. <laughs> mosoo miine. <laughs> non ñu miine mosoo sa paa bi mosoo ko yónnee miin. non non dama yónni kenn man daal entraînement lañ ma sant. Hmm. ci laay xëy ci laay gont hmm. waaw. Lamine. Ah, balaa ñuy ñëw ci combat moom Bombardier rek damay ñëw ci coow li nga xamante ne instant bi bari na te parfois mbëri ñoo koy créer. Mm-hmm. surtout mag ñi. Mm-hmm. xaaruñu leen ci tey par exemple benn Eumeu ak ak Lac de Guiers ñuy waxante wax yu ñagas benn message. Mm-hmm. nga mën a lancer ci diggante Eumeu Sène ak ak ak. ak message su jàmm. waaw mais xam nga àdduna moom wax moom bal la quoi ku dul jum na ko si amul. àdduna lañ nekk Sénégal lañ nekk Sénégal lañ nekk. Mhm. ku nekk àdduna bi amul ku nekk kuy dund te xamaluñu la dara. mais aussi tamit nit bu jumee nañ nangu ne juum na. Mhm. nag juum na. Mhm. xëy na peut-être mënoon na ko defee ci beneen anam. bu dul bii. mais na nangu na Sénégalais yi nangu ne juum na rek. après amul problème. parce que fii am seen day juum. Balla Gaye day juum. Mhm. Modou Lo day juum. Mhm. Gris Bordeaux day juum Bombardier day juum. mais xëy na aussi tamit nam ko waxee la mais na ko Sénégal yëpp comprendre noonu dafa juum rek. njuumte affaire nit la daal. waaw affaire nit la. Mhm. nit la bokk quoi. waaw loolu la rek. la de guerre ku baax la Eumeu Sène ku baax la. ay champion lañu. làmb leen boole te seen bopp xaalis. donc bu ñu bëriwul du ñu xaalis. kon lu ñaaw xaju fi quoi. nañ ko nangu nañ nangu ne na daal juum na. waaw mu loolu daal loolu kese la garaaw. loolu kese la waaw waaw. nañ hmm. bàyyi mu sedd rek. coow li bi nga ko déggee seetaan nga vidéo yi bi nga déggee coow li seetaan nga. vidéo yi damay dégg rek damay dégg rek yàlla xam ne ñoom ñaar ñëpp seetaan naa leen mais seetaan ma ba mu àgg. Hmm. mais coow rek moom am importance moo ko yemee rek daal di continuer. Hmm. mais comme juum na sa wax na wax na tontu na macha allah nañ xam ne juum na rek garaawul. na Sénégal yëpp xam ne ku dul juum amul. parce que nit nit dong la mën a doomu aadama doomu aadama mënul weesu lu doomu aadama kon nag maa ngi wax ci turu Lac de maa ngi wax ci turu Eumeu Sène mm-hmm. aussi tamit Eumeu Sène champion la Lac de Guiers la làmb leen boole ñoom ñaar lu neex lañ buggoon far mu juum na ñangu ne aussi tamit juum na mm-hmm. ñu bàyyi mu sedd te neexalaat seen làmb ndax làmb yëpp war a neex mm-hmm. waaw dafa war a yëngu neex comme neex neex neex non pas traque bi kon nu fii. maanaam waxante dinaa la duma yeeg yooyu quoi. Ah, loolu moo fi am. ba ñu dugg ci affaire bi dafa am vie vie làmb aussi tamit dafa fu mu yem. vie de famille famille jàmbur la. loolu kenn new ci. mais li nga xamante ni sekk nañ ko muy espoir bi bëre mu ñu paree sekk jàmm waaw. ñoom ñaar ku man. ku man laaj ñaa la ko. déet <laughs> yow mi dëkk ak kii muy sa partenaire kee ngeen bëree. seetaan ñaari combat yi yam xam nga tey bu dee ñaan damay ñaan yàlla de guerre yàlla may ko ndam loolu laay ñaan yàlla waaw. moo mm-hmm. de keroog am na lu mu wax ci yow lamin si mm-hmm. bëreek yow ak sa bëreek yooyu seetaan nga yooyu mu wax noonu ci yow. <laughs> sa aay ci am maa ko wax de waxaluñ ko ko moo ko waxal bopp. waaw mais xam nga làmb ji ñun ñëpp a bëri ñëpp mën a bëri moom li mu nekk moom muy champion dañ koy nangul. man li ma nekk aussi dama dama koy nangul muy keneen ak keneen ku ma ko mënti doon mbër la mbër la am na combat ak Lac de yàlla leen yàlla yóbbu ci jàmm ñu bàyyi yorente bi na supporter aussi supporter yi na nañu comprender rek saa waay juum na waaw mooy loolu daal <laughs> am na solo. njëgal daal la koy sàkku. Oh, waaw <laughs> waaw njëgal ko Sénégal yëpp njëgal nañ ko. <laughs> xam naa komba ba xam nga combat ba tar rek fi mu nekk nii. Ah, te da ko fekk Sall nag. waaw dama waaw koo fekk Sall. xam nga waroon jox ndox mu naan ba pare. Saal lañ ko fekk Lamine. Mhm. xam nga yaram ma tàng ñoom ñëpp xam nga rek mbër yi yaa ma gën a xam des fois te lak dafa ëmëj dafa mel dafa sonal waa géej waaye. te écrit waalo dañuy tàng. waaw waalo de. ma ne daal sonal waa seen. ama seen kër laaj naa laaj naa ko la te lag na ne bi yoon moom day génn biir géejawaay par force loolu de la lag wax ah mais géejawaay moom xam nga géejawaay moom ndeysaan géejawaay <laughs> la nag géejawaay géejawaay la ñun ñëpp ñoo bokk ndey bàyyi xëy na yàlla moo dogal tamit aussi mu dugg fi daan fi ñaari ténor daan na ma deux fois daan la daggeer benn yoon nii nee na moom man dama aussi Pikine ku ma fa daanu amul de moom rek moo fa daan de. yow ah yow Eumeu rek la ma sa daan Pikine ah. daan na fa taay seen ñi fi wax ñëpp. ñëpp daan na fa booy sëy. ak seeraas booy sëy. ñëpp la colifay. Ah, colifay taay seen. baabul waaw baaj bi ñëpp. baaj seeraas baaj seeraas baaj seeraas keroog 15 heures lañ tëj stade ba Iba Mar. benn defet laa fa sax. ñaar ëmm rek la fa daan. benn mbër la mais ñëpp laa fa kon daal maanaam ñaari secteur da ngeen a miinante. bu jàllee fii nga jàll fële. <laughs> waaw noonu la demee. te bi la nga war a tëj porte bi da la wax ci li mu wax te ëmb na ko porte bi day gën a ah, ko tëj. mën na ko ko tëj incha allah. Ah. du 5 décembre au janvier ay promotion yu amul fenn waaw waaw moins pour cent ba moins 70 pour cent waa li neexul. ay dàll équipement sportif Lacoste xoolal ma costume yu yàññ yi montre de glace mayo équipe boo bëgg lunette pull chemise cravate ba ci sax dàll loolu yëpp nag fenn rek nga ko mën a amee cawelma ñoo ngi Sacré-Cœur 3 entre la boulangerie jaune et Auchan première rue à gauche route goudronnée ko ñu mbéygee fay Welma c'est l'habilleur des VIP